ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. ami téléspectateur yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk di leen wax dalee nag jàmm ci seen journal de la l'arène nii lay demee lépp lu jóge ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaane mais à chaque fois rek ma ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Ami Diouf maa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. nuyuwal ak téléspectateur yi. waaw di leen nuyu di leen ziar yàlla fay itam di bu baax a mhm, macha allah euh, bu baaxee ñu dem seetaani revue bi daal di dellu si waat kon. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 1er juin 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xëtam mu njëkkam ca xëy fësal moom moo di bombardier bombardier nag moom ka xëy tey di wax daal wala ka mu xëy di tontu wala ka muy waxal kenn la mooy adversaire am bi nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 bombardier daal maanaam bu bëggee dëgg-dëgg tontu bu forox daal la olof di wax moom la def ne na sama digganteeg Balla daal boo ma na ko jàpp li ma la wax yow Balla Gaye numéro 2 du ko weesu ndax nag am ba des mooy la ma la nar a def suñ ca yeggee maanaam bu ma ci jógee bu kerogee boo ma séenatee da nga teggi dóor yu méttee méttee métti laa la nar a dóor daan la jëlli bu rëy Bombardier ne na ko tamit jàppal lenn jàppal na yow Balla Gaye nelaw moom terewoo ma koo def man damay nelaw a nelaw ba yandoor waaye sama combat ak moom Balla daal Bombardier ne na ko jàppal ne du ñu romb ñaari minute moom du ñu ko la loo xam ne ni buñ ca jógee képp koo ànd ak yow dana am lu ko naqari yëglikaay bi sunu làmb moo xëy tey ñëw dalal ko moom Bombardier mu ko su ma la jéggee nag jàppal ne ka nga xam ne bëri nga moom ñaari yoon moo daan la ñaari yoon ci moom laa jëm si muy Eumeu Sène jëli sama revanche ak ka nga xam ne ni moom moo di moom ama Sène moom Bombardier daal lool la wax yemu ca de maanaam vainqueur Ama Baldé ak Modou Lô tamit Bombardier daa mel ni ba tey teg na fa la nga xam ne ni moom moo di bëte tànkam mel ni ki daal boo jëf mu nekk nii moom la mu fas yéenee def daal maanaam jàkkaarloog Balla bombarde ko continuer di def aw yoonam di bombarde yi dem loolu daal la xëy tey wax ci yëglikaay ba nga xam ne moom moom moo di sunu làmb keneen koo xam ne tamit bis bu mag a mag moo koy xaar muy guy gi digganteem ak rëg-rëg yëglikaay bi nag le 29 août la nu war a bëre yëglikaay bi nag man la mu xëy te xam ne daal ndax nee na guy gi ndax maanaam pronostic ya nga xam ne mooy jóge ci nit ñi ñu baree bari ci ñenn ñi bokk jàpp ne rëg-rëg a ko man est guy gi mbir mooma dana ko desuye maanaam pronostic ba nit ñay wax wala li ñuy di xalaat ci moom daal est que guy gi dina ñëw aw weneen yoon maanaam daan rëg-rëg sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom mu nga ci yëglikaay ba xëy tey di fa wax combat ba muy wax nag ña ko nar a bëri mooy Fra ak seen 2 ka cay wax mooy se wala boog moom moo di soose di entraîneur nekk ci écurie Fass soose bu Fass daal la mu xëy xamle nee na kii di Fra daal wala boog kii di Tyson 2 moom mbër la moo xam ne mbër mu complet la waaye tamit nee na Fra kon la mu war a def daal nee na provoqué ko ci léem ci wàllum xeex ci wàllum xeex ngir ka nax ko daan ko soo soose moom loolu la xëy tey wax ko yëglikaay bi ñëw na tamit ci yëg beneen combat boo xam ne taxaw na ka ko taxawal moom moo di sëñ Moodu ñaa combat ba nag le 4 juillet la war a am diggante nga xam ne nii moom moo di Albouri ak Maxi Crési yëglikaay bi nee na daal soo bëggee dégg-dëgg Serigne Moodu Ñang moo fa jaar taxawal boobu combat drapeau de l'état daa mel ni ba tey ñu nga ca di ca continuer di ca wax Khalifa Sow ma nga xam ne nag moom mooy directeur technique national daal nee soo bëggee dégg-dëgg ci lu tollu ci maanaam ñetti fan am nañ ci téeméeri combat ak juróom-ñaar fukk maanaam ñett maanaam trois jours soixante cent soixante dix combat daal bëri nañ ko ci moom Khalifa Sow moo xëy tey di wax loolu ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb kenn koo xam ne ba tey ci mbiri drapeau chef de l'État boobu mu nga xëy di ca wax muy Malick Ngom ma nga xam ne nii daal moom lañ jënk wàllum arbitre ya ci lu jëm ci wàllum lambi simple ji yëglikaay bi daal xëy na tey di waxtaan ak moom Malick daal nee na boo bëggee dégg-dëgg ak defaru gu baax a baax am na ci wàllum arbitrage mi loolu moom Malick Ngom a xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noon drapeau chef boobu nag yëglikaay bi di suñu làmb xëy na tey jàngat ci fukki mbir yoo xam ne daal nee na yees war a bàyyi xel la maanaam bokk na ci nag ba ca njëkk jurbel ga nga xam ne nii tey maanaam lambi réew mi moo ca teg tànk ndax nag li ci gën a rëy moo ko nangu teg ci ab loxoom moo tax yëglikaay ba jàpp ne Jurbel moom mu nga ca kaw a kaw au sommet daal la nekk waaye la nga xam ne tamit mbir mees war a jàpp la dakaar ga nga xam ne ba ñu koy mujj organiser moo ko jëloon ak fa mu jóge maanaam xalaw li ko ca kaw daanu ci suufa suufa suuf maanaam dakaar daal nanu daanoo dafa sori lool lool fan leen doon xaar ak fa nu ñëw dafay yéeme maanaam nanu ñàkke moo doy waar ak Fatick ga nga xam ne tàmmoon na koo jël ñu gëjoon koo gis te mu ñëw tamit ca podium ba nekk daal maanaam trois troisième yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu lu mel ne ke ak beneen dëkk boo xam ne muy waa Ndar seen xale ba nga xam ne ni daal teewaloon na leen mu nga xale boo xam ne daal bu ñu war këram la ñoom waa Saint-Louis muy Aline Mbeng Aline daal wane na boppam ak ay mbir yoo xam ne daal yëglikaay ba compté na ko ba mu toll ci fukki mbir yoo xam ne daal ci dara résultat boobu ca la amee moom sunu làmb moo xëy tey ñëw toppal ñu lu mel ni ki noonu ndax waa Jurbel tamit daal yëglikaay ba ñëw na ci ñoom de bu baax a baax ba ak nañu wane seen bopp buñ fa jógee record la ñuy dem record moom lam nu xëy xamal ne na Bombardier digganteem ak polone ba combat ba yàq woon yëglikaay bi ne nag combat ba léegi soo bëggee dégg-dégg programme waat nañ ko maanaam mois de août daal la ñu fas yéene jàkkaarloo waat yëglikaay bi record xëy ñëw tey di wax lu ni ki noonu ñëw na ci la nga xam ne nii daal moom moo di drapeau chef de ak diggante général Malick ak nga xam ne nii moo di Libidor ca la fa amoon ca seen combat ba jël ba nga xam ne moom la ko général malika daan te Libidor doon ko contesté record xëy na tey ñëw ci dina wax lu mel ni ki non mel ni ki daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dëgg drapeau chef de l'État ba daal loola waaye mën a wax moom ku contesté ak ku ñànk contesté moo ca yem Gomis drapeau daal ñibbi na sunu dëkk muy bawal maanaam région de Diourbel moo ko jël kon daal gars yi bu ñëwoo rek ne waa Bawol félicitation moo ci des ndax nag fi mu nekk nii moom làmb ja ni ñoo toog ca kaw au sommet comme ni ko tubaab bi wax am na solo buñ jógee foofu nag euh, ñu daal di euh, dal rek euh, li nga xam ne moo di suñu làmb ci xëtam bu njëkk Babacar lañ fa gis tey moo di Bombardier mu indi réplique ci li nga xam ne Balla Gaye waxoon na ko moom daal nee na combat bi du diire deux minutes. réplique mooy tontu. waaw tontu na ko nee na du durer deux minutes ba pare te réewu ko nelaw te bu paree ci Balla Gaye da ëmma la te waaw mu ngi gis ay amaak mooduloo ki dal ragalul. maanaam daal kon moom fi mu nekk nii moom maanaam dafa taxaw temm rek. <laughs> ragalul de. parce que ah Balla dama ko daan dégg si ay làmbam mu naan la temps deux minutes laa la may waaye Bombardier bi yoon daa mel moo jox ay minutes. Mhm. deux minutes la wax. nee na seen combat waaw. du durer deux minutes. bon loolu nag. li ko waral mooy lenn rek ñoom ñaar mhm. ñaari ma fit la ñu mhm. ñaar ñu am fit am sañ-sañ ñooy bëre muy mhm. Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 defe naa ne tey Bombardier ci làmb nit mënu la ne mbër mu ragal la loolu sénégalais duñ ko ko waxal leneen lañ koy wax ne waxal sauf ba ragal kantaan nag dina diire deux minutes wala du ko diire loolu su arbitre soufflé lañ koy xam parce làmb moom maanaam naxante da caa am mhm. mbir mi dana la wax lii jàdd fa waaye xam naa daal seen combat moom bi yoon mhm. xalaat naa dina métti te xalaat naa jël bu rëy dana ci am mhm. lii moom gis naa ko ci ma nag ñaata minutes lay diiree ndax moom li mu wax dinañ ca fa la ñuy yem muy deux minutes yi wala duñ ca yem wala dañ koy passé wala nanga mais ci sama gis-gisu bopp xam naa ne dinañ jàppante te buñ jàppante jël ba mën naa rëy waaw xeexit mën na caa am parce que ñaar ñoo xam ne nii ah, kenn ci ñoom ñaar du ragal ndax ku ci ne tey fi nga yegsi si làmb sa liggéey moo la fa indi. ak sa fit voilà kon nag bu fa jógee ne bu jógee ci bàll ci ëmma la jëm. ba tey mhm. loolu tamit xel dana ko nangu ndax li tax mooy ah moom ëmma daka daanoon nangu ci moom roi des arènes. Mhm. kon defe naa tey xelam yëpp nekk na ci jël revanche am ak bëgg na fayu. Mhm. li mooy Ama nekk na xale boo xam ne tamit tey ah, dugg na ci seen biir parce que mu ngi bëri ak le roi des arènes. moom kon VIP la comme ñoom. kon daal defe naa boo dee fi nekk nii moom yaram bay xasan waaye bu mois de juillet mhm. le 31 juillet soreetu mook bàlla xam naa fi mu nekk nii mhm. ku ci ne yàkkamti nga sa morom ku ci ne sa a ngi xasan ah buñ ca yeggee arbitre suuf génn seen diggante ñu xool ñuy defante dina leer mhm, bu ñu jógee foofu combat rëg-rëg contre euh, guy gi ñenn ñi nag jox confiance de trop ki nga xam ne moo di rëg-rëg journal bi xëy samp ab laaj ndax guy gi dina déjouer ñooñu nga xam ne euh, dañoo jox confiance rëg-rëg ba ëpp maanaam dañ ko jox faveur quoi mhm. maanaam dañ jàpp ne Reug Reug dafa mën guy gi mhm. waaw ndax dina ko déchouer waa lamb moo tëdde noonu ah des mhm. dañuy jëm si combat diggante diw ak diw ñu naan diwa man diwa man ñu ëpp di wax naan diwa man des nag ñu dem ba ci biir bés ba leneen am ndax guy gi dina ko déchouer nag loolu ci moom la dépendre ah yaa dégg te xam naa ni ma ko gisee muy waxee ak ni ma ko gisee muy doxale guy gi dafa mel ni combat bi ñor na ko trop trop trop parce que itam moom lu mën a xew wax yi parce que Reug Reug dañu gis que ni daal la avec frappe daanoo ci benn te itam dafa def lit simple lu baree bare baree dem ba teg ci tànkam. Mhm. def ci loo xam ne dañ naan gisaguñu mbër bu ko def ci lit simple. Mhm. dugg ci MMA tamit di ca wane boppam. kon kooku ba pare nekk xale ñu bëri xëy na foofu la ñu teg seen ay mbir ba tax ñu bari di xalaat ne. Mhm. moom combat bi moom moo war a mën wala nangam. waaye guy gi tamit damay waxaat nit ñi rek di leen dànkaafu ci ci ñu tey ci guy ni yàgg na ko arrivé ci combat. mu lijjanti génn ci avec la manière. ku weddi digganteem Ama. yàggul ah, day dem de moom bu xesee ba def ñuy jat jat ba pare. Ah, ndax mbër mu naqaree natt la. <laughs> mi ngi noonu. Ah, ñi ñi wax loolu tamit nañoo xam Reug Reug ne am na adversaire de taille. Mhm. muy guy gi. dëgg la waaw. Euh, bu ñu jógee foofu coach Socé moom mu taxaw def seetlu ci euh, combat bi nga xam ne war naa am 9 juin incha allah muy diggante Tyson ak euh, ki nga xam ne moo di Franc moom nag nee na Tyson 2 est complet Franc doit le par la bagarre maanaam ci xeex bi daal la ko Franc war a mën a provoquer. waaw bu nee Tyson 2 mbër bu complet la ça veut dire que mbër moom bu ñu naan mbër mu complet la. Mhm. côté xeex am na lu mu ci mën. Mhm. bëree bi noonu. Mhm. effectivement Tyson 2 man nga ne mbër bu complet la parce que macha allah xeex. da koy def ba mu sax. ndax gis nañ ko fi adversaire yoo xam ne daf leen a maanaam man nga ne sa daf leen a duma. Ah. dafa xeex ak ñoom te bu bëree jotee day bëree lu leer nañ mbër mu mën a bëree la te itam di doomu lébu dëkk fi nga xam ne moom moo di ndaayam. kon moom wax dëgg yàlla côté xeex moom. a ah, lu mu mën la te itam bëre mën na ko lool. kon ça veut dire que xëy na soose foofu lay waxee. Mhm. bu kon nag yaakaar naa ne buy bëreeg franc. li mhm. soose wax. rab xel la war na ko a nangu franc provoqué ci bagaar. Mhm. pour jéem a bëri si ak moom. Franc itam yaakaar naa ne bëri dóor itam mu ngi ci ba tey amagu ci defe tax ah. kon defe naa am na lu mu ci man te mu ngi bëri dóor mhm. te itam bu mu xeex kon xëy na fii mu yegsi tey du fi yegsi bu war a bëri ak Tyson 2 mhm. kon ça na lu koy mhm. la boo xam ne itam combat bu jafee jafee jafe Tyson 2 Franc non ami combat bu jafee ngi waaw waa Equivox Vox Arena ko tëgg daa mel ni de ah. tëgg nañ lu neexal lu doy waar lañ <laughs> ci ànd ak bi tey nag petit modèle laa gis am na ndaama yoo xam ne <laughs> fii moo leen sut fii. waaw loolu mën na ñàkk xam nga Zador naa fi bu butéel bi sut. Zador ndaama yi ci biir Equivox. <laughs> sa Zador am na bu gàtt am na bu njool am na bu diggi doomu. am na bu njool bi lépp am ci Zador. waaw bu njool bi ma am na Abib Abib nga la. waaye bii daal am na ku mu may niroo la <laughs> nga bii nga gis ni am na bu ko sub si sa doom. Ah, waaw naka la lay nirool gàttaay bi. Ah, man de yow kay yaay wax yow nii am na gum lay nirool. na waaw ah, xam na modèle bu ne rek ci loolu am na mu ngi noonu huile de tournesol set na sell na macha allah. yiw na it loolu. bu ñu jógee foofu Khalifa Sow nekk directeur technique national bu CNG nee na moom euh, nous avons eu 170 combats en 3 jours mbir ma jax na de. directeur technique national. waaw ah, ouais. de façon waaw parce que loolu mooy drapeau soldat bi xam naa après bi mu jeexee moom la. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. def cumul bi <laughs> voilà dajale combat yi fa amoon. Mm-hmm. mu toll ci cent soixante dix combat muy téeméeri combat ak juróom-ñaar fukk ci ñetti fan. moo ah, ah, lay wan ne kon drapeau soldat bi dafa mel niveau bi gën na kawe. combat yi gën na neex enjeu bi gën na bëri effectivement. boo gisee drapeau soldat gën a neex maanaam enjeu bi dafa bëri et tamit ñu ciy remercier ñi nga Cissé mhm. ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo composé lamb ji mhm. bokk na ci tamit koo xam ne lit simple bi moo ko war te am ci rôle bu am solo ñu dénk ko ko mooy président Manga 2 mhm. di koo xam ne tamit vraiment yaakaar naa dénk nañ ko lu mu xam ndax lamb ku ko dénk Manga 2 rawatina de simple dafa dénk ko li mu xam kon ñoom ñi ko composé woon ñëpp Manga 2 ñoom Bira Sène ñoom ñi nga xam ñoom Maysa Ndiaye ñoom Khalifa Sow ah sama waa ji Ngom ñoom ñëpp daal vraiment liggéey bi mucc na ayib encore une fois daal waaw. Mhm. am na solo Albouri ak euh, Maxi Crazy duel boo xam ne daal c'est ficelé par euh, pour le 4 juillet incha allah kan moo ko tëgg. sëñ Modou Niang sëñ Modou mhm, moom mu tëgg lu am nekk koo xam ne promoteur boo xam ne moom li may wax rek. moom day mhm. def ci boole wax ju bari sëñ Modou. muy koo xam ne man dama ko naw trop sëñ Modou Niang ndax li tax mooy day def li muy def te du ci boole bruit. te à tout moment day tëgg ay combat saison bi ren moo ko ubbi. te defe naa itam li mu tëggu bu leen affaire frappe kenn tëggu ko xale itam mu ngi leen di génne mhm. sa à tout moment rek mooy wane xale yi ba nit ñi mën leen gis kon sëñ Modou Niang le 4 juillet yàlla nañ ci yegg ak jàmm mhm. journée boo xam ne bu nar neex mhm. amiin ah, drapeau chef de l'état bi amoon fële Kaolack ñu gis ne nag jur bel mu nekk au sommet waaye euh, région de Dakar en régression daal maanaam dafa xaw a wàcc par rapport ak Diourbel. <laughs> xaw a wàcc wàcc nañu <laughs> nag koy rafetal. ah déedéet ñoo wàcc <laughs> ah Kaolack nag. parce que ñoo ko gañe woon Kaolack sama dëkk mu koy da ko organisé. tooñ ngay def waaye lu ñu mën a dégg Dakar moom wàcc nañ parce que li tax ñu wàcc mooy ñoom ñoo ko jëloon. Mhm. te newuñu sax ci podium bi bii yoon. Mhm. xam nga kon ça veut wàcc nañ bu baax a baax. ah bon xëy na nag prochaine. essayance yi ñëw mhm. danañ gën a liggéey waaye Diourbel daal wax dëgg yàlla actuellement moom mhm. ak ku yëbu ne Babacar félicitation ak ku lu kuy bowal bool parce que mhm. nag tey yàlla dogal na ñun ñoo ne ca kaw di féliciter suñu capitaine Boy Faye parce que moom moo àndoon nag xale yi fa nekkoon nekkoon pile de cent vingt kilos wala cent vingt kilos bi mhm. ah ñuy nuyu waa région de Diourbel yépp rawatina ñu fa yor làmb di ko doxal mhm. mais vraiment daal man moom am naa mbégte mu baax a baax mhm. ñaanoon naa ñu jël ko yàlla dogal na ko kon région de Diourbel félicitations ci drapeau résultat bi mais aussi yi xam ne participé woon nañu te que sor ah, ko doon jël di ko tegal Thiès jël na ko fii daaw bu mujj bi am parce que daaw amuloon parce que corona bi moo tax Dakar a ko jëloon mhm. tey Diourbel la nga koy doog a jël muy doog a muy di door am ci soir région de mhm. ñu ñaan yàlla tamit ah ñu mhm. continuer di ko jël waaw ah. ah, parce que Youssou Ndour noonu li nga doon sama amin da koo bëgg amin amin tey ñu continuer di ko jël sa amin a gën a wóor delloo amin <laughs> waaw baax na <laughs> bu jógee foofu euh, yooyu la xibaar suñu làmb ñoo ko fa soloon ñu jàll record lañ fa fekk nag moo di MMA bi ci diggante Bombardier ak euh, polonais bii di euh, Pudziano noonu la de ay man finalement août lañ ko tëgg daal waaw yàlla nañ seeg ak jàmm te Bombardier mm-hmm. gañe ko incha allah loolu xaaral ma ne amiin bokk mm-hmm. comme que sama amiin day gaaw a nangu <laughs> drapeau chef de l'état face à général Malika quand les arbitres donnent injustement la défaite à Libidor défaite injustice ci Libidor nu mu nekkee noonu. ah waaw man daal xam naa arbitre est du terrain de. ah arbitre du terrain. Mm-hmm. bon boo gisee action générale Malika da ko plaqué. ñu mm-hmm. ko tëggee plaqué. Mm-hmm. ñuy dem sax Malika gis nañ ne deux jeunes ñaari jeunes ak benn loxoom mu ngi suuf mais benn loxoom ci li ma gis ci photo laa wax de. mu ngi ci kaw Libidor. kon ça li fi door daal di daanu jaaxal. Mhm. kon ça veut dire que boo xoolaatee photo bi man ci li ma ci gis ci ay photo gisoon na ko ci ay vidéo loolu laa ci gis. Mhm. loo a dégg daal gendarmerie que moom. Mhm. moom daan na li bi door xam naa ne ca cent vingt kilos waaw. am na solo eh, xibaar yi jaar fa ndar képp tey. day tàggatoo tey nag da nga nay temps yi sax laay wax. waaw damay sant a temps a ah. dara xewul non sant a rek. <laughs> sant yàlla rek ah, sant yàlla rek. julli ci gu tedd gi sallallahu alayhi wa ah, sallam. kon sant yàlla di wax jërëjëf. Mm-hmm. mag ñu baax ñi ci suñu réew mi. Mm-hmm. kum ci mën a doon rek. mu ne mm-hmm. maam borom Touba maam Maodo maam Limaamu maam Bou Kounta Ndiassane. maam Baye Niass xam nga Serigne Thiénaba. su ma limee dinaa jum waa ko Cheikh Omar Foutiyou Tall ak waa jàngu bi tamit. parce que c'est loolu mooy réew mi yàlla nañu yàlla aaral réew mi rek. gën ñu ko aaral. gën ñoo dimbali. amiin gën a tàppe suñuy xol comme ni ko moom Dabax doon waxee. Mhm. di ñaan jàmm Sénégal. Mhm. di la nuyu encore une fois. Mhm. di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si ci Equivox TV rek. waaye di nuyu di beral nuyu waa ABC. mu ko waxee nag mooy Aziz. business compagnie. Mm-hmm. ñoom ñoo waral Ibil Zador bi kon maa ngi nuyu képp ku fa nekk. Mm-hmm. di nuyu ka nga xam ne moom mooy borom kër ga di Al Amin Aziz Ndiaye di ko wax ne daal macha allah yàlla na société bi gën a yokk. Mm-hmm. ba yeneen topp ci gis nañ ko ci wàllum immobilier gis nañ ko ci leneen ak leneen. loolu mooy réew mi ah. un jeune da ngay am ambition pour defar sa réew te defe naa mu ngi ci kon Aziz. yàlla na nga gën a yokk yàlla na Sénégalais yëpp yokk waaye tamit nuyu ki nga xam ne moom mooy Ablaye Jigo. borom Wasaluur moom tamit maa ngi koy baax a baax jeune boo xam ne moom tamit mu ngi ñëw taxawu sénégalais yi ci wàllum hmm, mm-hmm. liggéey mm-hmm. Ablaye Djigo Wassa Lour maa ngi koy nuyu du nuyu mm-hmm. doomu ndayam daal ñu ngi waaye di fàttali tamit ne buñ ko fàtte ah samedi euh, ka nga xam ne moom mooy Habib Lecran moom mooy ñëw fa nga xam ne moom mooy ca arène ba ak Nandi Fall ak Dame Sène loolu samedi lay am bët set di le 6 Baba Jaw mooy ñëw borom ca borom ca am production soq ak gàmmu géey loolu day bés yoo xam ne ci samedi jëg dimanche ji kon soo bëggee dégg ji dana dingoon trop Mm-hmm. dana dang lool. Mm-hmm. Mm-hmm. fii la ñuy daal di yem di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi ñuy daw ndànk baaka parce que temps yi vraiment accident yi bëri na trop trop di mastawaat ñi nga xam ne rek ñoo nekk suñu naataango yooyu nekk foofu ca leeral ñi nga xam ne ñoo tëdd tamit ci hôpital yi muy ñaari blessé yi am ci accident bi yàlla fëgg seen i bopp ba ñu mën a dellu seen activité ñuy jiitu ñuy waaye jiitu yi yàlla yërëm leen tey xaare leen arjana fi la ñuy daal di yem yéen tey fogole séeréer mooy simnaa nun jërë ngeen jëf